et que Monsieur Fay est arrivé Je vais l'appeler tout de suite, Monsieur Ba. Là, je meurs de chaleur, là D'accord, tout de suite. Monsieur Ba, bonjour. Monsieur Fay. Alors, euh, je viens te proposer le meilleur des verres pour maintenir la fraîcheur dans ton bureau. Et en plus, il est excellent pour l'économie de la consommation électrique de ton climatiseur. Parfait. Cependant, celui-là,

beneen ponk boo xamante ni moom la ñuy tëjee mooy jëm ci wàllum euh, lu jëm ci euh, Akon City projet bi ñëw na yàgg nañ ko wax Sénégal mais dégg nañ coow lu bëri li ci am euh, coow li nga xamante am na ci mooy boo xoolee ñu bëri jàpp nañ ne xëy na wàllum am na ñoo xam ne mënoon leen jàppale ci yeneen projet yu fi nekk gars yi teg ci tànk wala ñeneen ñi sax dem nañ ba ne lu tax tuddewuñ ko Mbodiène City buñ naan ko Akon City mais lu ci mën di am su dee c'est dans l'intérêt du pays c'est un projet à saluer. mais le problème qui se pose également mën mënuma concevoir tey Sénégal ñu ne euh, tey jii dañuy tabax yenn taax yi wax naa ko sànq ci élément bu euh, ci jëm ci wàllum inondation yeeg yenn tabax yi nouvelle ville yi ñu def mais am na yoo xam ne nit ñi duñ ko lekk ay taax mais je pense que mënoo dem ci yenn village yi également yoo xamante ni les gens vivent de l'agriculture ñu ngi dund ci mbay ak yeneen yeneen au lieu nga def ay industrialisation nga appuyer seen projet yi mais bu fa ñëwee tabax fa ay taax yu rafet ay immeuble ay tour mais est-ce que ñëpp ñoo ci am accès mais logement yi ñuy wax fii Sénégal def ko jam ñaaju fi amuñ fa accès lañ koy joxe man du ma ko jënd sama papa keneen keneen amuñ njëgam ça veut dire que tey jii il faut ñuy xool li nga xamante moom mooy aspect économique de ce pays il y a des gens dans am na ay potentialité dëkk boo ci dem di nga fa fekk ay potentialité moo xam lu mu am boo demee yenn dëkk yi buy rek lañu am ñii Dakar ñi nangam ñi nangam donc il faut que ñu étudier. les potentialités yi nga xam ne ñoo am si dans différentes localités ñu xool ya industrie parce que Sénégal li ko téye li freiné son développement c'est manque d'industrie tant que amuñ ay industrialisation dañuy nekk une économie extravertie lépp li nga xam moom moo fi meññee dañuy ñëw ñeneen ñëw fi seen société defar ko yóbbu ko defar ko indiwaat di ñu ko jaarut lu cher mooy matière première te loolu moo ñu gàllankoor je pense que tey jii nañuy gën a veiller sur l' économie également que sur yeneen yoo projet yoo xam ne peut être que du ñëpp borom euh, sama genre gi xam ne ay baadoo lañ ñoo ci am accès mais ñi bàkk ñi am euh, ñi nga xam ne ñooy borom doole yi ñi nekk ci euh, péex mi ñoom ñoo ciy gën a tawfeex ñoo ciy gën a sukkuru ñoo ciy gën a dal yaakaar naa daal war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax gën xool yan projet la ñuy gën a adapté yoo xam ne c'est day répondre ak le besoin bu mondial bi mais également ak lii di réalité yu réew mi bu Sénégal rawatina yenn dëkk yi. nga gis ne tey jii sax euh, bu ñu xoolee bu baax a baax am na suñuy kilifa sax wax na ci ku mel ne Imam Kanté euh, may rafetlu position parce que tey jii Sénégal li ñu gën a tardel mooy souvent dañuy duñ duñ duñ duñ duñ duñ jug ci njëlbeen artu sa wolof nee na ko artuwul di nga àtte c'est-à-dire que tey jii aussi mënuñu nangu koo xam ne day jóge rek ñëw ne cëpp ah nga ne ko projet ma ngi nii. nga nga àddu ci te étudier d' abord la provenance de ces de ces de ces de fonds fan la jógee lan moo ne ci ginnaaw lan moo ko tax a jóg tey jii dañu nekk ci àdduna bu tëradi lépp lu ñuy def tamit te foofu la faute et comme aux parlementaires on a une assemblée nationale qui doit contrôler l' action du gouvernement mais également ak lépp loo xam moom moo di ay projets yu ñuy def parce que lépp lu ñuy def war nañu étudier étudier ban impact lay am d' abord fan la jóge ak ñenn ñoo ko indi. parce que ëllëg pour daw coow la parce que bëri na fi ay projet yu bëri yoo xamante ni gis nañ ko ci monument de la renaissance ak coow la mu juróon euh, ñu bàyyi ba mu taxaw ba jug ne cooc sa ko ñu doog étudier naan non waru fee yoon taxaw lii ko tax a jóg fekk béy wéy na mbuus loolu lañu war a éviter ñuy dëppoo ak suñu réalité réew waaye tamit ñuy gëstu lépp loo xam te ni ñu ngi ciy dugg tant que defuñ ko rek problème yi ñu am chaque jour day révélé wu je pense que tey jii euh, euh, parlement bi am nañ ci rôle bu am solo boo xam ne war nañ ko ci def gëstuwaat bu baax a baax ba lépp luy dugg ci réew mi ñu ko ñu mool ko ak ñu dëppee suñu diine suñu réalité waaye tamit li nga xam ne moom moo jëm ci suñu leeraange ñuy wax transparence bañ am benn coow ëllëg yaakaar naa bu dee loolu am na dina am solo parce que gis nañ fii ci wàllum télécommunication ñoo xamante ni jóg nañ fii du ma tudd tur wala bu ma neexee sax ma tudd ko mbàkk yu fay euh, donte temps yi sax incha allah na affaire yi euh, di promobile euh, mais gisoon nañ fii jafe-jafe amoon te pourtant ay yeneen société ñoo jóge ci au niveau de l' étranger ñëw fii implanté wu fii donc je pense que tey ji am na ñoo xam ay porteurs de projet la qui sont des fils du pays tey ji war nañ ne gën a mën a jàppale nga xam ne dañu am une économie boo xam ne duñu dépendre si kenn nous serons ind euh, nous serons indépendants mais tant que euh, tey jii bu dee indépendance bi yow sur le plan économique amoo ko amul sens soo amee indépendance sur le plan politique alors que sur le plan économique tu es dépendant tu la toujours une économie extravertie et ça c'est dangereux pour un pays qui se veut développer mbokk yi kon lii mooy liñ leen euh, tënkaloon ci actualité de la semaine su li nga xam ne moom moo di tolluwaayu réew mi di leen jox dox daje incha allah ci beneen numéro euh, beneen ayubés ak seen chaîne de production Tawfekh Production ngeen di ko bàyyi xel mbokk internet yi bu leen ci fàtte di abonné également pour également s'informer davantage xam lépp li nga xam ne moom mooy daw ci réew mi si Sénégal ak li ko wër jàngeen jëf À l'établissement Baye Frères, votre confort à l'aide d'une production et distribution locale de qualité est notre unique priorité. À cet effet, nous vous proposons ce qui se fait de mieux en matière de confection de double vitrage, qui est un procédé qui permet une totale isolation acoustique et thermique. Plus de nuisances sonores, plus de transfert de chaleur et moins de dépenses d'énergie. L'établissement Baye Frères, c'est également un équipement biseautage 45 degrés, découpe sur gabarit. À l'établissement Baye et Frères, tout le savoir-faire et l'expertise locale sont mis à la disposition pour une parfaite prise en charge de vos besoins et une totale satisfaction de notre clientèle. Adresse HLM 1, rue 13, avenue Cheikh Amadou Bamba, Dakar. Téléphone